non bu ko la ilaha non la. nguur nguur kenn du ko. oui mais pas Habib góor la soxna si nguur kenn du ko dénkaane. non pas Habib góor la. la ilaha illallah nguur. non moom il s'est engagé à à à faire un seul euh, euh, naa ko avant muy prêter xam nga lu ma wax. Hmm. maa ngi ko fekk benn hôtel Banjul ma dem seeti ko. ñu toog waxtaan ma ne ko président mun ma fekk sama benn ko paa bu sama benn xarit bu tudd Paa Fall euh, moo ma yóbbu ci moom sama xarit ñu dem toog man ne ko yow lan mooy sa projet pour Gambie mun ma man dañu def coalition ma gañe lu ñu wax ci coalition bi laay def maanaam damay génne prisonniers yi nga xam ne boobu sax génne leen fekk na ko kii na ak jaame ba ñu génne leen ñoom ñëpp essayé na daabo voilà daabo mooy paa bi mooy moom moom parti bi mun ma léegi bu ma defee trois ans organiser waa yeneen élection tout ça parce que c'était ça loolu la juboo nag gars c'était ça le donc yooyu moom soxna si yooyu da ngaa duggagul ci pale bi taxaw ci couloir bi ci ginnaaw jàkkaarloo géej <laughs> wàcc ñu ubbi la mag Sall mos na ma ko wax nee ma oto yi de ak PPM yi rek la ma dama yi gaa yi di lii coow li yëpp lii rek la man <laughs> ma ah, mu ni ma rek ñu génn nii gaa yi garde noonu <laughs> mun ma yëre bi mën nga am suffrage universel du caaxaan. man loolu. président dàq ci àdduna. man ko ah ma xam nga ni. Euh. yow mënoo fexe ba duma la jiitu de mën nga am man da ngay taxaw ba ma dem ba pare. ba di ko mun <laughs> mën naa yaay lii rek xeex jéeg wax jéeg yëpp gars bii lii rek. lii de oto bii garde yeeg pimp pimp jeeg yoon weeg. ñuy dégagé yoon weeg xam <laughs> mais loolu mais loolu tant que ñamagoo ko. mënoo xam mënoo xam li ñuy wax. Ah. déggoo li ma la wax de. mais mais mais dama bëgg nga taxaw. xanaa xamoon ni les vrais sonko les les sonko de sang ñooñu bëgguñu kenn gañe. waaw mais dama ma xam nga loolu. non ci loolu laay ñëw. si situation wu xam loolu ci situation wu par les les sonko radicaux bëgguñu kenn gañe. ku ci ci Pastef yi. loolu leer la mais. parce que xam nañu yëf yu wóorul. waaw mais euh, xam nga. Ah. am na une frange de Pastef nee nañu bu dul Sonko du kenn et donc yaa y a une campagne de dénigrement bu ñuy viser parce que ñooñu di ko jëmale ci Bassirou Diomaye parce que ñooñu dañoo xam ne àdduna dara wóoru ci mais le gros de loolu sa xalaat la rek non non may ma ma loolu sa xalaat la rek waa le noyau de Pastef muy les responsables significatifs yi ñu ràññee ñoom ñëpp ils ont porté la candidature de Bassirou Diomaye on semble dire hmm. ci suuf ne Sonko bu nee joomaay joomaay la bu nee du joomaay du joomaay lay doon mu mel ni bu nee du joomaay c'est Ousmane Sonko qui va être désavoué. waaw ma wax la benn affaire kenn ku bokk ci Sonko bu gañee lan mooy xew ci senegal lan mooy xew. par force crise day am Sénégal. nu crise day amee. Euh, bu Bassirou Diomaye Faye génnee nu muy def gañee nu muy def dafay génne Sonko n'est-ce pas. ça mun na ko bañ a génne. non dama lay laaj mun na ko génne dama lay nañu nañu waxtaan nañu nañu nañu xeltu. Mhm. ku mën a gagné ci ñoom muy Cheikh Tidiane muy euh, muy euh, Habib Habib Sy. muy. Euh, Déthié dama naa waaw damay naa naa wax ñi nga xam ni ay candidats Pastef lañu.